sama yaay jégg puusa bi lu mu fi ñaw sa yaay na ko tereet suñu ñet reeree yéen ñu fàtte te démb ganaar nañu reeree waxal sa yaay sama yaay du moroom ndax jur na fi la ko waroo sa yaay mënul togg su toggee mu xam sa sotti arab waxam la tëkk moo tax xamul lu dul sëyu papa yaay joom si indi woon jàmm dégg welcome ay jëfam a feeñ ni ig si malcom ñaaral de sëriñ to amul su tur adel turu këram di yëbu su naan sama jëkkër fan war a gën a bëgg sama wujju na dee nee na ay doomam ñooy naan di de sama amee lu ma jote loolu xisa ji lay doon sa yaay day nëbal nëbal sama papa moo ko wax waa dégg naa nëbal ngëbal xanaa gaaña la la jot mooy buur bi garde bundu këram liggéey ba làq si këram keneen ku ko bëgg a yàqal day tëb ay ñaareeli ñaaw bëgg may gëm ñaaral sama ennemi yaay taxaw fi saaga sama nijaay waa nee na daa miin joo ndogo bu gudd man xajuma si moom nee ko sa bu gudd bi xaajuma si moom baat bi lay sansé ma dagg ko cooli jeex eh brisque brisque na waaw sës sës dama des kaas muy kuul yow chef waxa sa gaay ñu toog xaaruma bit bi di jóg amuma jot ne ani maa ngi di jóg maa ngi di toog jooda nga dégg nga ka tapp nga def ma dagati bàyyi ma dem ma dem munoo ma tee bàyyi ma dem bàyyi ma dem bàyyi ma dem saa naa jëm bi te yàgg na juga ko sa rapport dem juutu ma daral sa kaw ngay daw yaa ni nga ñëwal taxaw ngay daw rab man man ak yow rek day daw rek amul arrêt géej waay way baaw waaw waaw galaay léegi lay jàpp fa benn diiri di diiri di diiri di diiri ma munu ma joos yoor demal nga toog man rappeur ma munu ma foor Hey yo, real recognize real rap With you, yo, moving like Nelson Oleg Sabay, then you would have wicked for up to sort like a zoom The more rap, she go beat her According to my job, but Steph Nack is a beast Rap go pen, the boat, the rap, the book of the hood, the kiss Blur, she's all your picture, feeling with ton of shit The new school, old school, she find your pussy beat Tell us the side of who, but she take care, but she just But the man can look at my lyrics, but fucking no shit The rest of the Lord, and now I take ten feet, the music Let me back, me a holocong, it's how would you jump Life with all low bullshit, no promote réeréel mooy sa bopp nga xëpp ci taal estal ka baabu bu ci fëgg la fa ay yëkkati fënd bi wari wari jiri jiri wari wari wari ci ci fëpp ha waaye ina ñu buum beeg ñu foo tuuti ay ñu buum beeg ñu foo tuuti ay eh, foo tuuti ay yow eh sa rapport musul xam dara mais na xale bi jàng na ma rëfa la ma dëba maay profilé jox cour pare di la dëbb ku ma bëgg dëgg ne ko gëj a la ma dëkk dama fëta seen fëta gët su ma ndaree def lëgët sa baat laay kët musuma ragal ba ragal di ma donn xel mais xel li xel bi doon bomb sa rapport kaañ la day bomb pétale la wala ma jël si ñàpp ay déggat ey ra

Okay, yow jangan xale ma làmmi ñoo ko mënuma waktu beri, eh bëri yeah, yow ji ok MC Mo respect yeah, ok MC